si seen plan d'action boole nañ ci wàllub social daanaka sax mën nanu jàpp ni moo ci ëpp doole yi mouvement bii di wuyoo si mouvement ànd ak askan wi ñu gën ko ràññee si Malakaaw si ñaareelu fanu weeru koor gi amal activité bu mag fii ñu déparé di seen màkkaan si Touba ànd ak seen président bii di fallu Diop ñoom de jël nañu lu tàkku ci ay jumtukaay lu si mel ni ay madla ventilo ay potundaa sow ak télévision ak yeneen ak yeneen jumtukaay yi nga xamante ni dinañ ko itteewu jubal nag fi nga xamante ni moom mooy prison bu Mbàkke yi ngir nag jàppale ñu nu fa tëye te ndogal dal seen kaw lii si xeetu jumtukaay yu takku daanaka sax boo ko doon xayma joge na si million madakaaw ne ñi nag jaranoo gestu ndaxte nag danoo bokk si biir société bi te li leen dal jombul kenn ba moo waral ci weeru koor gi ñu bàyyi leen xel loolu bu doon sax ay matériel yoo xamante ni dina gindi seen stress doon it ay matériel yu ñuy mën a jëfandikoo saa su nekk ndax xam ngeen ni tàngaay bi ak dëkkuwaay ba foofu dina xaw a metti loolee waral bi ñuy dépasse nekk Touba mbooleem membre yi teew ànd ak kilifa diine yi ko composé ak président bi yëkkati kaddu wax si li waral activité bi musa mbay yox seen kaddu. waa mouvement ànd jàppale askan wi. ñoo waa Madakaw ngeen nga xam ci Madakaw ñoo dajaloo tey ji pour waaj jëm ci euh, prison bu Mbàkke yóbbu fa ay matériel yoo xam ci ni dañ koy soxla ay tele ay ventilateur ay matelas ak yëpp yoo xam ci ni jëm na ci jumtuwaay yu soxla taamu gin taamu tey dem ci prison ba mooy mooy mooy taamu gin taamoo woon ci ginnaaw dem ci hôpital yi def fa don de sang lépp lépp li ñu jëm ci acte social bi nga xam ni dañuy jëm ci li nga xam si ni tane na ñi ñin tane ci liñ leen tane lañ leen di jéem a jàppale te ñi nga xam si ni ñu ngi ci prison bee ne li liñ leen xañ moo gën moom lañ ñun ñëpp loolu lañ soxla muy liberté parce que nit moom boo ko xañee liberté mu doxi soxlaam ak yeneen ak yeneen donc liñ leen mën a jàppale mooy yóbbul leen li nga xam si ni foofa mën nañ fa nekk ci jàmm. si convoi bu am solo Madakaw ànd ak seen jiit lii di Fallou Diop dugg biir Mbàkke jubali prison ba yóbbu ko yët ko kilifa yi ngir nag ñu mën ko jox détenu yi di xalaat amalaat yeneen activité jëmale ko si yeneen couche yi si weeru koor gi lu si mel ni joxe ay ndogu jàppale néew gi doole gi.